dégg seen wax mooy seen président bii ngeen am day dooleel borom ñaari turi tey nag yàgg nga dem si télé sax tubaab yi ak di recevoir ñoom Barack Obama di wax anglais ak français sénégalais ñu ngi lay déglu actuellement ñu ngi sama Facebook ñu ngi presque 2000 personnes ñu ngi seetaan sur TikTok 3000 personnes ñu ngi connecté di seetaan. tey si mbiru borom ñaari tur yi opposition bi di topp suba ak ngoon di dugal si kilifa diine di leen ko wax xam naa ne kilifa diine yi duñ leen mës a gëm wax askan wi seen président bi ngeen am day dooleel borom ñaari tur yi tey bu ma la doon laaj nga wax ak sénégalais noo def ak euh, borom ñaari tur yi bokk maanaam monsieur le président <laughs> ah waaw foog mu leer tamit quoi. non xam nga. Mhm. Euh, nga nit moom mën nga nekk opposition walla lépp looy wax rek na am ne na am base boo xam ne lu méngoo dëgg la. Mhm. parce que nag mën nga am say yi nga taxaw ci waaye bul sos. sos du tax nga jot ci réew sos du tax nga am loo war a doon am borom ñaari tur li ma ci wax mënuma ko passé li ma ci def mënuma ko passé barke démb organisation mondiale de la santé fii ci Genève mennum Sénégal ak libi ñoo taxaw ne duñu wote texte boo xam ne mbirum wér-gu-yaram la de waaye dañ ko ci dugal mhm. ñoom dañuy tabaxal rek dugal mhm. dañ même bu ñuy wax affaire internet boo liirul lool lool lool di nga gis si biir am na phrase boo xam ne wala page boo xam ne daañu fa dugal lenn bu ko état bi signé nag ñu ne ah kon yéen na ko signé woon naa mhm. te tax ma wax samay ambassadeur sama gouvernement képp ku fi dof dof mhm. wala bañ a am vigilant ba di dugal Sénégal si document international boo xam ne mhm. danañ si def lu toll ni tarfatal ay ni si luy légaliser mbiru ñaari tur yi xamal ne non seulement dinañ la sanctionner mais di nga président de la république da war politique réew. leer parce que loolu mooy suñu politique. Mhm. ñaareel bi ba may jàppale Idrissa keroog te tax ma dugg si. parce que tant affaire football la woon rek man du ma si doon wax mais bu ñu demee ba ay homme politique fii ci réew mi ma nekk tey France di ci wax ak ñeneen nañ ko sanctionné. Mhm. du leen ñu ko si wax ma ne nag jot nañu ne ñu dugal suñu loxo. Mhm. parce que Idrissa Gana Gueye dafa def li mu war a def xam boppam newoon na dafa bañ kenn waaye na ne moom bu solee mayo boobu. ñibbi si Sénégal bu joué daan ko yuuxu dootu fa jar dara. Mhm. loolu laa wax ñenn ñi kon moom dafa def lii ware fam ñu war ko si jàppale nag contre lu kenn waaye def na lu am maanaa booba nag bëggoon naa ñi wax. Mhm. ak di su soutenir. kon loolu wax ju yàqu la. Mhm. nit nag bu la neexee mën nga jël loo xam ne dafa périmé amul bopp amul genn nga topp si rek naan waaw ñii ñooy jàppale borom ñaari tur te si yëkkati ñun dañuy wax aussi dañu soxor si borom ñaari tur yi dañu xeex borom. ñaari tur yi kon finalement la yow sa réew amul tolérance nangam nangam parce que nanguwu leen changer seen loi ñii nekk sa biir réew ñenn ñu naan lu yow ñoo ñu ngay jàppale kon loolu wax ju yàqu la Sénégal daal man la ma wax duma ko changer. nguur jaraluma ko ci àdduna. macha allah du ma mos toog man sama gouvernement. ndeysaan quelle que pression bu mu mën a jógee ci àdduna bi may changer loi bi nekk Sénégal. Mhm. wax naa ko ci kanamu xobama wax ko ci kanamu ko bëgg ci àdduna bi loolu du du lu ñuy nëbb du lu ñuy kon nag wax jooju dafa war a. farankulaay farankulaay mhm. bu ñu fexee bi président bu fi ñëw wax kàddu bu mel noonu sàmm ko. Mhm. te débat bi jeex na. wallaay. kon kay ku ñëw moom na fexee te xam naa ne Sénégal ku ko fi jéem sax. yaakaar naa ne doo fekk. ndeysaan d' accord donc ma jaajëfal la ma bàyyi la sénégalais ñu ngi lay seetaan lan ngay mujj wax sa kàddu boo xam ne nga tàggatoo ak sénégalais maanaam. xanaa ñaanal leen yàlla suñu borom jàppale leen wàññi coono bi jàppale ñu jàppale ñu ñun euh, bi jeex njëg yi ñëwaat seen place koom-koom bi yokk ak naataange ci Sénégal vraiment saa yu ma jullee danaa ñaan jàmm ci Sénégal. stabilité si Sénégal. Mhm. danaa ñaan bu terrorisme mos a dugg suñu réew. Mhm. danaa ñaan toujours Casamance jàmm sax fa dakk mhm. ah ñu ñu am jàmm Casamance ndax mooy jàmm réew mi.